dal la pude pude pude pude Oustaz yow xamoo lu may filmé de xamoo lu may filmé. bu jël saa sapeur ñoo ngi yëpp quoi indi leen oto oto blessé ñu indi oto kii quoi indi oto kii ñu indi Thank you.